Euh, jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di siyaara di leen di jox ku nekk sa wàccuwaay amaat nañ kontante ak mbégte bu baax a baax nag tey nag moo fas yéene leen dalal benn kilifa di kàngam nga xam ne kenn du ko présenter présenté ci biir sit bi ñu koy duppe Serigne da Seck ñu koy dàkkantale borom soble bi aha kooku mooy borom soble bi wax naa leen ko kenn du ko présenté ti xam nañ ko bu baax ci biir réew mi bitim réew ak diaspora bi Serigne Daouda dañuy bàyyi nga nuyoog mbokk askan wi ñu door a dugg ci suñu biir question yaatal waxtaan mu neex bismillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mhm. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi din mhm. ila yawmi alqiyama ila yawmi yubaasun ñu ngi leen nuyu di leen dalal di leen ñaanal yàlla sit bi yàlla def ko télé comme ni ñu ko doon ñaanee rek di ñaan yàlla mu dégg ñu gaaw tarkala di nuyu xalifa général des Layènes Baye Abdoulaye Thiaw Laye di bu dëgër biiram di nuyu sëriñ Mahamadou Lamine di jaale dese yu fi am yëpp fii ci waa ahlu Layène yëpp waa ahlu baytullaah yëpp ñu ngi leen di jaale bu baax a baax tarkal la jërëjëf euh, sëriñ Daouda Seck yow it ñu ngi lay fay bu baax amaat nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee rek ci tënk lépp dañ koy wéer jëmale ko ci xam-xam yaatal ko ci diggante wu ñaan ak euh, faj bi muy def jëmale ko ci jaamu yàlla yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy seetsi am loo xam ne ñu ngi koy sàkku ci moom lu taw féexe acca actualité saa su nekk ayu bés li ci xew ci biir réew mi dinañ ci dellusiwaat acca Serigne Daouda Seck Euh, ñu bëri ñu ma ci woo di ci seede maa ngi koy dégg ñu koy waxtaane ci mbedd mi mu di seet bu doy waar bi ngay def kenn na tableetu ko ñu bëri xam nañ ko mu di fii ci biir réew mi ak bitim réew hmm. seet bu doy waar boobu ngay def nag la gaa yi bëgg nga dellusiwaat nga waxtaan ci ndax saa boo tàmbalee di ci waxtaan tant que daanaloo kenn du ci zappé dellusi ci seet bu doy waar boobu ngay def waaw alhamdulilah <coughs> comme ni ñu ko daan waxee rek xam naa tey dañoo xaw a changé bërëb bi hmm. génn fii ci tawféex la waaw mhm. ndax ñun fu ñu daan liggéey lañ daan faral di defee interview loolu lañ gënoon bëgg loolu lañ gënoon sopp mais mhm. tey dañoo génn toog fii mhm. ndax dafa am lu ko waral waaye seet moom lu mu doon wax rek laay wax boo jàngee mbir ba xam ko doo ci sonn dafa leer moo tax li may wax na nga ànd rab bu la neex àndal ak lu la neex man bu bés bu mu la seetalee dinaa la wax lu la sëriñ mus ta wax déggal li di nga dégg loo xam ne sëriñ mosu la ko lu tax ma wax loolu nag mooy damay toog ma jël sama temps ma seet bu baax a waaw su ma la nar seetaare boo ootee dama naan la mënuma ko. dëgg la su ma la waxee mun naa ko rek dinaa ko def te dinaa jël sama temps dinaa la wax lépp. lu si aajo te a def. Mm-hmm. ba yow nga kontaan yow client bi dinaa mm-hmm. mm-hmm. oote. naa am amaana tey ñu ngi ci leneen. dëgg bu wér. waaw loolu moo tax. mun nañ ko jàng nañ ko xam nañ ko. xam nañ ci ay façon yu doy waar. waaye toujours li may wax rek ñu ci alxuraan la ñuy teg suñu mbir yëpp. suuf la ñuy seetee. ndax moo ñëw ci alquran mhm. wax la ci loo xamante ni boo ko toppee doo def mukk une semaine te wala deux semaines te gisoo say mbir soppeeku mhm. lu lay wax si seet bi boo ko defee mhm. doo toog mukk une semaine wala deux semaines te gisoo sa mbir yi soppeeku tarkalla parce que di koy gis bu baax mu leer naññi nii waaw tarkalla seet nag ku la ci ku ci wax moom sëñ Daouda Seck moom lool kenn waxatu ko mën bi ak ràññeeku bi loolu moom kenn waxatu ko mais dañu am ñoo xam ne dañuy nekk bitim réew bëgg a seetlu daar daar seen mbir di xaw a a tembe ñu bëgg seet bu gën a gaaw te yow moom du dee seet moom kenn laam-laameetu ko du dee waa bitim réew nag ku ci bëgg seet vite fait nan ngay def. waaw parce que ñun journée bi tey suñu xëyee. Mm-hmm. dañu am liste seetal. Mm-hmm. Mm-hmm. a leen. suñ ko seetee danañ ko bind si kayit lépp suñ paree bu ñu la ooyee kayit gi la ñuy jàkkaarloo di la ko wax. mën nga am sens nag nga oote fekk ñu ngi toog si si sa seetukaay bi mhm. boobaa dañuy toog rek jéqil la seetal la bu mhm. fekkee tamit da bëgg daar daar mhm. suñ la waxee ñun li nga xamante nii xam nga tey boo ootee fekk nga fi ay nit ñu ñu war a seetal fekkee yow da bëgg ñu seetal ñu seetal la daar daar da def li nga xamante nii ñee defuñ ko bu ko defee ñu bàyyi ñee ñu seetal la ndax soxla bi moo daar daar waaye daal ñun képp ku ñu oo muy bitim réew muy biir réew mi ni ñu lay seetalee benn la amul soppeeku waaw dañuy toog Mhm. seetal la mu ngi bu la neexee ci biir réew mi nga ñëw mhm. ñëwal ñu jàkkaarloo man mhm. loolu sax moo a dàqal téléphone bi nga ñëw ñu jàkkaarloo ñun ñaar ma wax la loo xamante ni sëriñ mosula kaa wax Mhm. jërëjëf acca dama koy dëggal rek ndax ñun ñii nii émission bi ñu tourné moom sax mhm. dafa siif pour am waxtu yum ñu may ñu mën koo def ak moom ndax li fi nekk ci nit bëri na taarkal la fii ci mhm. biir ba ci biti dañ koo rang ay seet ñoo xam ne dañoo ñëw pour mu seetal leen dafa fees dell looloo tax euh, pour ngeen am koy dee xaw a jafe acca jërëjëf euh, ni ma ci waxtaane ci seet bi damay ñëw ci kiis gi kiis gi it niñ fakka saalika ñu bari ñu ngi koy waxtaane ba tax na ñu bëri fi mu ne nii bëgg nañoo jëflanteeg yow ngir kiis ndax kiis nag ñu bëri war nañ koo sàkku luy neexal xel la te yow hmm. yàlla da la cee may lu kawe. Hmm. loolu moom kenn naa tabletu ko ñu dellusiwaat ci kiis bi ngay def. waaw alhamdulilah ñu ne ñaanal yéen tamit yàlla fay leen. Hmm. yàlla gën a dëgëral taxawaay bi. parce que buñ ko annoncé ñi ñëw nañ bu baax a baax am na lu ñu si jot a def bëri na. te it di wax ne rek képp koo xam ne bëgg nga sa doom li muy jàng bu ko jàngee mu xam ko bu déggee rek mokkal. dégg bu ko defee rek mokkal. capté te it xel mi di bi moo xam daara la même mag boo xamante ni day fàtte sax kiis bi boo ko jëlee. Mhm. bu soobee yàlla sa mémoire bi dana ñëwaat lépp loo dégg benn yoon da nga koy capté. Mhm. Mhm. kiis bi noonu la mel buñ ko defaree ba jox la ko fekkee xale la lu mu jàng du ko fàtte. du jar sax muy num tudd bu demee examen jarul ci jarul def dara. fekkee si lu mu jàng rek lañ koy fekkee daara la noonu la. ñu tamit nag ni seet nañ dañ ko jëflante ñoom comme nga xamante ni ñëw nañ fi defal nañ ko lu mat lu a mat jege quarante personnes. defal nañ leen ko. bañ ko commencé annoncé ci émission bële ak léegi. Mhm. te ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi ciy liggéey ak ñoom. Mhm. Mhm. tarkalla aja jërëjëf euh, Serigne Daouda Seck ñu koy dàkkantale borom soble bi am na solo foofu sax laay duggu mën a dugg yaatal damay dellusiwaat ci soble bi. soble bi jaaxal nit ñi ndax li ci nekk mbóot bi ak mm-hmm. euh, tawféex yi nga xam ne yaa ngi koy jëflanteeg jaamu yàlla yi mm-hmm. soble bi ñu dellusiwaat mbóot yi nekk ci biir ndax li muy jëriñ bëri na ak secret bi nekk ci biir dellusiwaatal ci soble bi sëñ daam alhamdulilah falilahi hamd mm-hmm. boo si nekkee ba nit ñi dem ràññee la ci tey gis nga fi lu nekk nit ñi ñëw leen ñi ñi naan ay borom jinne ñi naan nangam mais naturel dafa am solo ñu oote naturel la te dañ kaa xam. Mhm. moo tax yàlla mu ñu ci dimbale bu baax a baax a baax a baax soble bi nag comme lu ma doon wax rek. ci li mhm. muy dox bëri na trop. Mhm. ci li muy dox bëri na trop. même léegi hémorroïde sax commencé nañ di ko ci faj. tarkala waaw trouvé nañ ci solution boobu noonu. da ngeen ci faj soble bi. waaw ci soble bi. léegi. soble bi bu fekkee da am soxla mbiri papier nga nekk fii. bëgg dem bitim réew. Mhm. ñu nuyu suñu bopp étudiants yi nekk Maroc ak Canada. Mhm. parce que bëri nañ fa ñoo xamante ni. Mhm. yàlla dimbale nañu fii leen jaaree. waaw leen dimbale bañ dem jàng. dafa leer waaw ak ñu nekk bitim réew. fii lañ lay ba nga dem. waaw moo tax ñun toujours damay wax ne man su ma génnul sax alhamdulilah parce que ñu may booleet ñu ëpp. parce que loolu lu ko waral mooy am ay preuve bu fekkee mbiri papier la. suñ si jëflante incha allah cinq personnes yi njëkk a lim yow ci ngay bokk. Mhm. te li ñuy wax nii waxuñ ko pour dara. Mhm. buñ émission bi nekkoon direct. Mhm. léegi tey da nga gis ne nit ñi danañ oote seede loolu. appelé waaw. dafa leer. su fekkee tamit danga nga am sa koy bëgganteet. mu xëy bëgg la bàyyi mën nañ ko téye si soble bi. sa soxna dafa dem. yaa ngi dégg sa soxna dafa dem. mën nañ kaa indiwaat ba mu ñëw toog déggal la. bu fekkee ne sa njaboot dafa tasaaroo mën nañ kaa dajale ba mu nekk benn. te loolu bëri na léegi ci àdduna bi yor doom mënuloo ko dara mu dem. bëri na. Mhm. dañ koy xëccaat si soble bi danañ ko xëcc ba mu ñëw te bu ñëwee yow rek lay déglu. bu fekkee ci réew mi nga ne. Mhm. lenn rek laa lay wax nga indi utal yërëm nga indil ma. yërëm rek bu fekkee bitim réew nga nekk. boo mhm. amee yërëm. dinaa la wax lu li ma ciy def. loo loo ciy def après ma wax la li ngay wax boo ko waxee. teg ma wax la def ko ci ron lal bi nga teg ko ci ron lal bi nga bàyyi ko foofu. doo toog une semaine te xale bi bu fekkee dafa demoon ñëwaatul. ñëwaatul tawféex lu ñuy liggéey lu des ñu def ko fii mm-hmm. maanaam daal mbiram mbiram jëkkër nga bëgg a jëkkër mm-hmm. nga tëju mm-hmm. bëgg ubbeeku nga nekk ci ay xat-xat nga bëgg li nga xamante ni moom mooy wërsëg bu yaatu te sedd parce que wërsëg dina ñëw léeg-léeg di sonal borom bëgg wërsëg bu yaatu sedd loolu yëpp bëgg liggéey ngay xëccoo place wala ngay xëccoo suuf. Mhm. loolu yëpp mun nañ ko jaaree si soble bi. Mhm. yàlla dimbale ñu ba ñu réglé ko ci. duñ bëgg nag di wax lépp. parce que mhm. dañuy da ngay gis ku taxaw ku xamul dara taxaw fee naan kii day wax rek. waaye ñoom ñu toog di wax naan day wax rek. nañ toog di wax ñuy wax rek. di avancé yow nga toog foofu di commentaire di bind di saaga rek. nit waaw tawfeex la loolu ko mos xam nañ ko bu baax a baax. ba tax na li nekk ci soble bi yëpp suñ ci doon wax fii ba suba duñu pare xam naa ci tënk ni leen leen ko waxee rek njëriñ li ne ci soble bi moom tarkalla bëri na wax doguma la sax waaye lii preuve bi mhm. mooy toujours su may def émission dama koy wax mhm. bu leen ma tëjal sama commentaire képp ku ma mos a lekk xaalisam ooteel jëru sa bind mhm. wala wala neexee nga bind pour weer nga oote ne kii lekk na sama xaalis loolu yëpp fii laa koy jaaree si soble bi tarkal parce que ku jëflante dañ lay woon preuve mhm. moo tax ñu sañ a taxaw mhm. wax loolu ne ubbil commentaire yi ku ñu lekk xaalisam sama xaalis tarkal su ko defee mhm. mu oote ñu ñëw ñu delloo ko xaalisam te ko gis tarkal parce que am na yoo xam ne ñun joomu nañ ko jàll ci beneen ponk damay ñëw ci sëriñ si du ma nee sëriñ si nag seetlu nañ léegi lan moo tax maanaam ci sëriñ si seen wax ji maanaam bëri loolu bëggoon nañ koo xam waaw Cheikh point boobu moom dama bëgg ñu taxaw fa tuuti sëriñ si nag laay waxal man waxuma ñu nekkul sëriñ bu njëkk damay laajte ñaata ñaata journaliste ñoo am ci réew mi kenn xamul nu mu toll. Mhm. ñaata artiste ñoo am ci réew mi. Mhm. kenn xamul nu mu toll. bëri na ñaata mbër. bëri na ñaata ñuy def théâtre parce que démb rek maa ngi dégg ñu ne xaw ma ñen ñoo amoon kas mu rëy di xaw ma ñi ñi fees seen bunt bi ba ne lii lan la. Mhm. kenn xamul ni mu toll ñaata politicien politiciens yi ñoo daa wax lu amul. dañuy wax tey su ñu ñëwul amul artistes yi dégg ngeen eh, jamono bële paase ñu ne am na bu dem buñ taxal ne moom moo sànni pompe à gaz loolu dafay raye. Mhm, ci diggante loolu wax nañ ci. diggante Sidi Diop ak Waly waaw. Mhm. est loolu ci diggante Sidi Diop ak Waly est loolu wax nañ ci toujours. Mhm. ñu topp sëriñ yi di ñuy ñawte ñawte di wax dugg na fii dëgg képp ku weddi ne sëriñ amul. da ngay wax lu la neex parce que toog di ko wax suñ paree ñoom am nañ seen sëriñ am nañ sëriñ ñu gëm am nañ sëriñ am. xarit bu ñu def plateau ñooñu la ñu oo invité ñu jox leen xaalis. fii politiciens yi sax boo leen éviter dañu lay jox xaalis ñun xam nañ système bi ni muy demee. léegi nag ñu bëgg jàpp ñun téye suñu der bi mais ñun amuñ famille amuñ ay doom amuñ jabar wala amuñ dara loolu ñun duñ ko nangu deme ne. ñun sëriñ si luñ munti bëri. ñu naan dañoo bëri ñun bëri nañ ba ëpp mbëri bëri nañ ba ëpp journaliste yi. bëri nañ ba ëpp comédiens yi bëri nañ ba ëpp politiciens yi. mënul nekk. waaye ñoom ñooñu ëpp xeet. doy na waar wallaay ñooñu ëpp. Mhm. te est-ce que ñooñu bët set yaa ngi gis euh, politicien bu toog di saaga morom politicien am bu toog di xas morom euh, journaliste am. Mhm. ah mbër bu toog di sànni xeer morom journal mbërëm. Mhm. loolu yëpp te duñ si wax léegi ñu bëgg ñoo jàpp ñun dañuy raay wax ju bëri. ñu nekkoon sëriñ. ba léegi ñu ngi nekk sëriñ. keneen ku fi dem feneen bañ def la leneen mhm. na nga dem nga wax ne kàccoor bi moom ma def loolu waaye bul ko askanale sëriñ di tooñ sëriñ leen a jàpp en otage di ñu di ngawtee te lu ñuy wax dara amu ci dara dara dara dara amu ci si lu ñuy wax dara amu ci mhm. waaw jërëjëf loolu mhm. man daf maa metti nañ ñu bàyyi ñun ci luñ nekk lu jub la boo ñëwee ci koñ bi nga def interview dañ la wax kii lu jub lañ ko xamee toog këram dem jàkke de wala lu jub kenn mosu ñoo gis yu ñàkk fayda mhm. kon nag duñ nangu ñu bëgg ñoo xajamal suñu liggéey bi mhm. te ñoom bëgg set ñuy def erreur ñoom ñu invité plateau yi di wax loolu mhm. ay biisoo ak ay ñooñu bëgg set ñi def fi erreur bu ne ngaaññi biisu hmm? man mooy xaw ma ku ku pataa gi biisu ngoone tam nekk deux waaw bëgg set mu def lu ne ngaaññi Hmm? ba pare ñu bëgg ñëw fii di ñu sonal ak ay day sëriñ day dóor ak kooku noonu borom kanam gu rëy boobu xaw ma ndoy baan xaw ma ci lu mu nekk ñi ñi ñoo ko gën a xam ñi ñi xam nañ ko am na ndoy baan am na sëriñu profeeram am na ay nitam yu jàpp di leen yóbbu foofu ñi ñi xam nañ loolu ñoom ñuy wax ci sëriñ ci yëpp non taxawal nga ne am na ñu ñuy yóbbu fan ci lan ñi muy booleeg ay sëriñ hmm. waaw boo bëggee dem plateau am li ngay fay xam nañ ko fay da ngay fay fii amul looy def doo fay ba pare ñu bëgg buñ paree di lekk si ndab li ñu paree bugg ñëw xëpp ci suuf loolu rafetut. doy na waar suñuy wax. Mm-hmm. sëriñ nit nit ku fi saay saay lekk xaalisam. na joxe mm-hmm. turu kooku ñu siiwal ko wane ne kii la ñu xam ne kii du sëriñ. waaye yow booy toog di wax da ngay généraliser nga wax. sëriñ si yëpp mafia la quoi. waaw naan ay mafia la sëriñ si génn si YouTube bi yaa ngi dégg di ñuy dóor ak di ñuy nàngam ñun dóoruñ kenn. àdduna bi dox da ngay dox nga ànd ak moom Hmm? moom mu ngi noonu di wax na dem na dem na dem seeti mbokka yi moo ngi nii fi amee doom ay jàmbur la koy tuddee mel ni ko amul ay mbokk. Hmm? <laughs> kan la Ndoye Bane xaw ma <laughs> doy na waar moom moom ci lu mu nekk ñëpp xam nañ ko doy waar xam nañ ne salaire am mayewul lool lu tax mu nekk fii ñëpp xam nañ ko xam nga problème de doy waar dina la tontu de mhm. sonal nañ nañ ñu bàyyi ñun ay nit ñu baax lañ yow xam ay doom nit ñu baax lañ jour bu bijou invité bijou ngoone moom ngay tudd di nga am problème acca problème lay am di ngeen def xam naa benn plateau waxtaan acca jërëjëf daaw euh, Daouda sekk am na solo ci ponk yooyu mu doon leeral di ci faram damay ñëw ci benn euh, waxtaan damay boo xam ne nit ñaa ngi ci wax fan yi yëpp. Hmm. ci ngawti ngawtee hmm. man bëgg naa xam lan moo tax sëñ mun war ta mën a am iPhone ndax coow li dafa bëri de. xanaa du nit. sénégalais. Mhm. dafa wala kilifa moo war am. iPhone 11 wala lan la. non euh, sénégalais dafa soxor. dafa jàpp ne dafa muus dafa yeew léegi lan moo tax sëñ Mountakha dafa nekkul nit wala lan la. andi na coow wala iPhone dafa jomb. koo xam ne yaa ngi defar ay nit yu am waxuma la iPhone ay nit yu am lu ne ci àdduna. Mhm. yow mënoo am iPhone lan mooy iPhone 11 lan mooy loolu. ni mu doon kilifa doon mag kenn du ko séntu ci. yenn eh, yenn tey ay iPhone 11 déedéet ñëpp xam nañ ne demul ci bi naan day jëndi wala du oo oh, kenn naan jëndal ko. tey jii nii man mën naa jël sama addiya ma yéene ko sëñ bi. ma yéene ko sëñ bi jël ko jox ko jox ko jox ko ko mu tuddati jox ko ko àddiya mhm. sëñ bi téyewul téléphone ba xam iPhone 11 ak ay nu mu tuddati ñaa ngi ci wax ci suuf di naan sëriñ bu yore iPhone yor ay 3310 mbaa sax duñ ko am téléphone yi ñaak fayda ab sëriñ mun doon kilifa di yor iPhone 11 di koy yàlla dafa bind te yemalewul mhm. gis nga nit ñi luñ doon yàlla la de ñun liñ doon nii yàlla la de ku yaakaar ne ñun ñooy may suñ bopp man su doon may sama bopp naa fi nekk fii di wax di sonal sama bopp di génn fii ñu may saag sëñ bi nit la comme ñëpp xam nga Sénégal fii nekk lu may wax chaque jour nekk sëriñ dafa neex. Mhm. sëriñ da ngaa juge sa bopp ba pare. ñoom pour ñoom boo nekkee sëriñ yaa moom aljana da ngay toog ku def lii safara nga jëm soo defee lii safara nga jëm ah yow yow juge nga sa bopp ba pare jël nga sa bopp dugal aljana mhm. léegi da ngay jël ñeneen ñi nga dugal safara. yaa ngi dégg moo tax yu bëri da leen bett ñoom pour ñoom sëriñ sëriñ daal da ngay toog rek mel ni benn ginaar yow da ngay da ngay da ngay toog rek yaa ngi dégg lépp di la fekk si loo soxla boo bëggee am doom sax da ngay téye kurus gi wér léegi am doom. Hmm? Sénégal dafa yaakaar mus na te yeewul. sëriñ nit la. nit la comme ñëpp. yaa ngi dégg. Hmm. amul leneen lu nit di soxlawoo sëriñ da koy soxlawoo parce que nit la. xool ko comme sa bopp yow nit nga moom nit la. Hmm. li ngay woo rek sëriñ bi da koy soxlawoo. mais bu fekkee yow da ngaa jël sëriñ nag teg ko foo xam ne niveau yàlla wala dara. allah bu boobaa da ngay yow yow yaa nekk dof. day doy ñun ñii comme ñun ñi di génn ci youtube bi teguñ ñu fenn di ñuy saaga dañuy def lépp foog ngeen ñu nekkuñ sax ay nit ñu baax am na solo sëriñ si hmm? mhm. jàng ñun moom lañ jàng te ñun di bu fekkee toog si jaadu wéeru la dañuy toog si bu dee alxuraan la dañuy jàng alxuraan yéen si maanaam comme yéen seen biir mais à part dafa am ñaari façon waaw ndax kilifa yi moom féete moom non non waxuma mhm. ñoom ñoom ah, yaa ngi ci kaatam sëriñ fi mu ne nii moom ok ay suru dara mhm. sëriñ Mountakha yi suru dara Mm-hmm. ay mag lañ te ñun fii mag mm-hmm. li nga xam mooy yokk cër mm-hmm. suñu dara mag am na maqaama bu mu toogee sëñ mu dara boo na jàkk xam ne kii am na maqaama bu mu toogee mu yore di toog di wax ci moom yenn dute yi sax loolu yara dikku la ñàkk yar la ay iPhone 11 la mooy iPhone 11 laa xamul lii loolu doy na waar jërëjëf am na solo jërëjëf euh, kon sëñ Mountakha Mbacké sëñ bi ñu ngi char bu baax mhm. aca su la neexee doxantool ak sa iPhone 11 ba mu neex la nga bàyyi nit ñi ñu wax sa iPhone 11 ah mhm. jërëjëf <laughs> am na solo aca <laughs> mais xale bi it nu mu tudd tuddati xale bi ci boppam it gars yi dañoo dalaat ci euh, lii di porte parole bi sëñ sëñ Bass waaw xam nga wax moom it maa ngi dégg nit ñi di ko naa di koy wooy booy bas booy bas pour lan hmm. lan moo leen naqari bañ koy wooy booy bas depuis ba ma waxee ci affaire clandestine bi gaa koy wooy booy bas waaw hmm. yàlla may ko nga soxoree ko lu mu am sëñ bas yàlla may ko ñoo fi nekk ñaata sëñ sëtu sëñ Tuubaa moom ne yàlla moom la am ñoo xam ne dañoo soxor léegi su loolu passé man waxuma ci cadre boobu mais sëriñ Sénégal fii ah, waxoo ci waxoo ci yow dama ne la koy Mhm. non loolu moom du ko wax mus ngaa mus ngaa gis sëriñ bu génn taw di xas Macky di di jàjji Macky Sall naan ka dellu ci yoon dimbaleel nit ñi dimbaleel askan bi yaa ngi dégg su amee sax xam nga xam nga fii média bi ni muy demee. Mhm. dafa am ay ñuy wax ñu jël suñu waxee. wax ji maanaam bu amee importance bu amul importance danañ ko jël naan duñ koy jéem a tekkatiko moo tax journaliste Sénégal dafa ñeme yàlla mhm. journaliste yi toog si télé yi dañoo ñeme yàlla xamuñ <laughs> eh? que tey Sëñ Bass génn na wax lii ñu jël wax suñu bët bi daf ko lee pourtant am na am na am na beneen sëriñ bu wax xale xale général benn baay bi. génn moo waxee noonu wala nit ñooy ko déformé. Hmm? moo ko waxee noonu wala xaw mais génn na wax wax ju am solo jël gouvernement bi jàjj leen yaa ngi dégg wax leen na leen yéen la wax jooju moo ñu gën a amal importance mais ñu jël boobu de ñu seet sëñ bas. ah tey ñoom ñooy def lu ñuy saagaa sëñ bas wala lu ñuy waxee lu ñaaw sëñ bas bu subaa ñu dem toog si ronam ne ko sëñ bi ñaanal ñu loolu moo fi am loolu mooy jikkoy sénégalais. Hmm. da ngay wax ko lu la neex saag xas ko tey jii am na ñuy commentaire bi nu si suuf commentaire nangam suñ di dañuy ñëw danañ oote wax seen soxla waaye sëriñ feebar la bu nekk fii. tarkalla jërëjëf jërëjëf euh, sëñ daaw Daouda acca xam naa seen émission nee na bëgg jeex na. Mhm. mais dañoo for sànq ci wew nag ñu naa ñu dégg sëñ moo Modou Kara di wax ba naan nguuru Iblis ñen ñi nañ ko interpré interprété ak niñ ko jàngate ne suñu maanaam nguuru Macky Sall gii nii nguuru Iblis la loolu loo ciy tontu. loo ci wax xam nga loolu pour nga tontu si day xaw a yéeme parce que sëñ bi génn na. tagg Macky Sall tey mu génnaat wax lii. Hmm. xam nga loolu pour nga wax ci. ñaari facettes yi bokk. waaw loolu dafa xaw a daal waaye benn côté man lu mu wax. nga jàpp parce que ku am yërmande. ku am yërmande nekk nit nit. Hmm. nit ak yàlla nu mu fonkee nit doomu aadama nga am yërmande ak réew mi muy demee nii. Hmm. da nga war a taxaw nga xoolaat sa bopp. nga ne ni dafa yéeme. moo bi lu mu wax noonu loolu xel war xaw na ko mën a jàpp benn côté. parce que lii ku amul xor rek moo ko mën a teg doomu aadama. amul xor rek moo mën a teg li doomu aadama moo tax bu keneen génnee naan xale yi moo gisee ko génne naan xale yi nañ bàyyi géej gi ñu dem ooy nangam dangaa naa fekk. xanaa Macky nguur gi day nguur nguuram da day nguuru Iblis ma tax mu wax wax jii nii. man daal xaw ma nguur gi nguuru Iblis la. xaw ma seydaane xaw ma bu nit. wala sa waay dañ koo dañ koo compal dañ ko compalee ah, dina bàyyi. Ah, wax xaj na rek gëm naa ne daal. Ah. Macky dogalu yàlla moo fi bàyyi waaye du pexe doomu aadama. dogalu yàlla keroog jour bu muy wàcc. Mhm. yàlla buy suñu décret ne day wàcc na dem ñu gën a am doole ci àdduna bi ñu nekk ci ginnaawam kenn mënul wax ba ba du wàcc li ma waxoon rek laay waxaat moom bu ko yàlla falee mu jàpp ni nit ko fal ba tax muy nekk fi naan day calcul di nax boppam fii nit falul kenn nit falul kenn léegi nag yàlla yonent bi lu mu wax dafa leer allahu muxti wa anal qaasim yàlla mooy jeexe waaye maay séddale maanaam ci nit ñi lay jaar mais terewul fii amul Idrissa Seck amul ma paare amul ma demb amul lii amul nit koy àndal fii ba bu yàlla na da ngay wàcc ngay wàcc loolu Macky waru ko réeree mbir kon loolu na na bàyyi yi muy def nii ay calcul nga liggéey loo xamante ni fii ba 40 ans ku ñëw dana apprécier dana ne Macky Sall comme ni ñu tagee Ablaye Wade tarkalla mhm. waaye Sénégal moo mel ni tey Macky bu fi jugee mhm. benn président ñëw bëgg kaa jël moo ak nguuram teg leen si yoon day mel ni nekkutoon Sénégal yi leen doon fitnaal jërëjëf acca xamul am na solo jërëjëf comme ni ma leen koy waxe tàggatoo la wax na leen encore une fois moom du tëj commentaire am dañ ko koy tijjil ku soxla rek commentaire lu la neex mhm. ñuy bàyyi nga tàggatoo waaw am naa danga fàtte gambe bi waaw gambi bi waaw wax wax na wax wax nga dëgg mhm. comme voyage bi nga xam ne yaa ngi koy préparé ci fan yi mhm. aussi euh, dama leen di dama leen di fàttali numéro bi rek bi nga xam ne su nekkee foofu gambi di ngeen ko mën a jot su ngeen ko wooye ngeen jot ko ci da ngeen di def euh, plus 220 cent 203 ngeen di def 74 61 ma baamtuwaat ko pour ñi mu raw. plus 220 203 74 61 jërëjëf sëñ daaw dañu bëla nga tàggatoo. waaw di nuyu waa Gambie ñëpp. fu ñuy mm-hmm. oo bëri na trop waaye àdduna bi moo tëju ba doo mën a génn. waaye tamit ñi wax waa Gambie ñu xaar ñu ñu ngi ñëw ci début mois bi di ñëw incha allah. Mm-hmm. danañ fa ñëw bu soobee yàlla. ñu xaar ni képp koo xamante ni ñu ngi fi doon jëflante ñoom sax pare nañ parce que ñu ci ëpp doole gi yëpp di doon jëflante ak ñoom xam nañ ñu bu baax incha allah bu ndog ndog amul ci yoon bi dinañ ñëw di wax tamit ne jaaru bi ñu téye tamit képp ku si bugg danañ la ko defaral ndax kaaraange la waaw képp ko takk nit ku jub jëm si yow du yegg si ku bëgg ku bëgg a waxal sax du mën a wax nit bu bëggee def dara sax pour jëmale sa njaboot wala dara doo mën a liggéeykaay bi nit ñoo bëgg la faa génnee wala nga am ku la fa bañ wala dara ne dala fay génnee mhm. yaakaar naa day sonal boppam rek maanaam képp koo xamante ni bëgg na si dañ la si mhm. dimbale di leen sant tamit yéen bu baax di leen mhm. gërëm di wax ne réew mi dañ defaraat toogaay rek loolu rek moo fi nekk lu wax ni ñu nekk fii di wax yëpp ñoo ko teg suñu bopp kenn teguñu ko ñun rek ñoo ko teg suñu bopp soxor fekk mu ngi am rek xamal ne réew mi du dem parce nit ki lu yàlla nam rek mooy am si moom Mhm. amul kenn koo xamante ni mun nga namm dara si nit mu am day fekk yàllaa ko wax rek tey jii man bugg naa la liggéey yow mhm. nit ñëw na fii ne liggéeyal ma seex mhm. fekk yàlla wax na ne su ma defee man day am bu yàlla waxee du am naa la defal lu nekk ci àdduna mais du am jërëjëf kon nit ñi nañ xam loolu di sant bu baax di gërëm di leen ñaan ak yàlla sit bi yàlla yëkkati ko yàlla def ko télévision. Mhm. ci barke alxuraani karim. loolu yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñëpp di jéggalu ñëpp. Mhm. baalu ñëpp àq bu amee lu dëng ci wax ji ñu xam ne suñu la lu ci mat ci yàlla la ma zalika alallaahu bi aziz. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf xanaa dinaan big up waa mbokk sini fans Gambie yi nga xam ne mhm. ñu ngi ñuy toog ci site bi saa su nekk li ci woote di ñuy bége bëri na ñu nit ñu ngi leen di bége bu baax a baax yéen waa Gambie ñu ngi leen di bége di leen di charré am nañ kontante bu baax ci yéen jërëjëf ba beneen yoon incha allah